ah dafa am lu ma bëgg a wax suma la waayalee nangul maam <laughs> la golden boy de ami Sénégalais de golden boy de no de ami Sénégalais le centre du peuple c'est Wally Ballago Seck le golden boy kii <laughs> Ah, non mais taay soj bi metti na quoi. mais gars yi maa ngi leen di ziar di leen bëggee di jaajëfal gars yi di leen ziare bu wér di ziar ci ñiy seetaan ñëpp fu waay mën a nekk ci àdduna bi ma lay bëggee di la baalu àq di la seetaan bu wér di leen di jëfal temps yi dama gëj a waxtaan ak génn parce que damay nekk sama business su bopp waaw nii may waxee génn nii maa ngi dëkk bu sori boo xamante si dafa am business su ci missionné maa ngi dëkk bu sori nii dëkk bu sori laa nekk je suis lii gis nga étoile bi euh, fi mu toll ni hôtel bi ma nekk nii cinq étoiles la. cinq étoiles moom laa nekk nii mënu leen koo won sax lépp ndax photo si di jóbbi cinq étoiles la cinq étoiles journée deux cent euros la te war naa fee toog ba samedi mission bi mat après ma jóge fa dem Paris Paris du ma fa yàgg Paris dimanche si ngoon gën kaa tuuti lundi damay ñibbi si parce que damay liggéey incha allahu rabbi gay dafa am lu ma bëgg a waxtaan ak yéen. waaw ma ñëw ok maa ngi ziar gars yi di leen bëggee bu baax dafa am lu ma bëgg a waxtaan ak yéen gaa yi nga xamante si nii ñoom ñooy wër di wax ci siidi Diop naan Sidi Diop guitariste bi daw na musicien bi daw na diw dama na yéen mën ngeen a xam loo xamante nii xaw ma ko mën ngeen a xam loo xamante si nii man aadama boos Day néegri di ànd ak Sidi ay fan di liggéey moom mën ngeen a xam lu ma xamul su ma téyee sama géñum noppi mënoo leen a noppi mënoo leen a wax lu ngeen maîtriser wul xam nga ne man kuy duul wala information maa la dàq duul képp kuy nettali du ma sa moroom sa papa ngi nii man information bu ma joxewul baaxul man may ànd ak moom ba bëccëg di nekk ak moom di sangoo ndoog moom di yeewoo ndoog moom mën ngeen a xam lu ma xamul mën ngeen xam loo xam ne man xaw ma ko dama leen di laaj rek non demande la bu ma leen di laaj mën ngeen a xam yéen man man lu ma xamul man Boss Zeyné Gris man non dama bëgg ñu waxtaan. bëgg ñu waxtaan rek ndax mën ngeen a xam yéen man lu ma xamul damaa bëgg ñu waxtaan man ngeen a xam lu ma xamul mun ta nekk munu leen a xam lu ma xamul man miy nekk ak Sidi guddeeg bëccëg di yeewoo yeewoondoog moom di nekk ak moom guddeeg bëccëg liggéeyandoog moom di dem ci soirée di ko filmer di ko jël di ko dugal di ko def fépp man ngeen a xam man lu ma xamul xam leen ñoom ñëpp man ngeen a xam man loo xam ne nii man xaw ma ko man man aadama man ok benn affaire laa bëgg mu leer seen bopp yi Sidi Diop li ko waroon pour mu def ko yépp def na ko musiciens yi mu waroon a jël yóbbu leen yóbbu na leen yéen ñëpp bu ko neexoon tey jii ni ma ko waxee ci vidéo bi ñu mu bokkal ndey ma baay Mamy Sadio bi mu bokkal ndey ak ay jarbaatam ay nijaayam bind leen ci liste bi daan na ay musiciens lan tubaab xamul loolu indi leen ci réew mi defu ko gor moo tax mu indi leen ñoom ñëpp ku ci ñëw nag fii Europe gis Europe ni mu mel nga jaay sa ngor mais loolu yow laa nekkul ne dangay yàqal Sidi de sa bopp ngay yàqal parce que nee naa leen métier mi ni def ñoom Sidi xam na ci koo xamante si nii mën na la koo jàngal toog biir Sénégal nga xam ne Sidi rek la doon xaar pour mu ñëw ci orchestre am Sidi bu ñibbee Sénégal day gën a defaraat orchestre bi day gën a baax mais ay diw daw na ay diw nangam Sidi li ko waroon ci ay musiciens def na ko sa waay man ma répété man Faramarine laa Wally Ballago Seck laa bëgg Faramarine loolu kenn du ko dindi dama ne la dëgg laay wax Sidi li ko waroon ak ay musiciens yépp def na ko Sidi tey bari na ay fecckat yu nekk di souffrir Sénégal sinapeur ay tëggkat guitariste mosu ñoo teg seen tànk Europe Sidi fexe na ba ñëpp jëw mais kooku dañ koo war a sant gërëm ko ku jaay sa ngor yaa xam ku jaay sa ngor loolu yow la mais moom gore na indi na leen ñoom ñëpp tey jii kuy seedal lu baax da nga ko seedal di Diop. ndax indi na leen ñoom ñëpp ñi mu doon àndal ñëpp fexe na ba teg seen tànk Europe dama la Sidi ñi doon àndal ñëpp fexe nan ba ñoom ñëpp teg nañ seen tànk Europe fii nii Europe ñoom ñëpp a ngi fi sinapeur yeeg waxkat yeeg euh, ñii ñii sinap ak ñiy wër di raxas ay dàll ak fecckat yeeg tëggkat yeeg ñi nga xam ne seen talent sax demeewul noonu ñu ngi fii fexe na ba ñoom ñëpp ñu ñëw. biir Europe gii sa waay kooku jaanam wàcc na lam waroon a def lépp def na ko ku jaay sa ngor yow la mais ku yaakaar ne Sidi ngay yàqal yaa ngi nax sa bopp mais mënoo yàqal Sidi mënoo yàqal Sidi déedéet sa bopp ngay yàqal parce que ku nekk si ñoom métier bi muy def Sidi xam nañu ko ko dàq nekk Sénégal bàyyi leen ba Sidi ñibbi ngeen xool orchestre bi ni muy mel Pape Bara ba mu demee dañ doon wax Sidi du mel nag Pape Bara ci la Pape njaay ñëwee ñeneen ak ñeneen ñeneen ak ñeneen. déggoo leen ma de xam nga leen moo gën a bon toog di duul ci loo maîtriser wul ay ñoom soko yi nga xam ne nii koo ci fëgg na le kattal sanda yi nga génneel ma 500 euros du ko génnee parce que yoruñu yoru leen bëgg ay duul toog ci émission yi plateau yi di duul rek sii di nangam sii di nii sii di sax raw na leen parce que sii di yor na xaalis réew na aadama réew na am na xaalis yéen yoru leen tuunu ndayam koo ci fëgg ne ko deux ne ko 200 euros mënoo ko génnee. 200 euros barki Serigne Babacar si waxkat yëpp boo ma leen tegaloon fii ma ne leen génne leen ma 500 euros barki Serigne Babacar si nekk di duul kilométrisé wul yoroo leen seeni nelaw doyul lan ngeen nekkee Europe ay maas soko gi compté poto yi ubbi mbalit yi valisu tubaab yi ni sànni nga koy ubbi di xool topp mbeddu Espagne yi di war di compté ay mat sawaay lool lool toog di duul lañ ngay man doo mën leneen sawaay fii nit ñi dañuy liggéey tëlu ñu nekk ci nit ki naan sii di nangam waaw nangam nangam kii sénégalais la comme ni nit ñi nekkee sénégalais noonu la nekkee sénégalais dëkk ci réew mi dama ne la mënoo leen a fexe fexe ba ne Sidi Sidi Diop ab guinéen la wala ab kosovorio déedéet sénégalais la dëkk ci réew mi doon sénégalais juddoo ci réew mi màggee ci réew mi sénégalais rek la mën a doon la mën a doon ba ba muy dee dëkk ci réew mi. màggee ci réew mi juddoo ci réew mi doon sénégalais du Côte d'Ivoire du malien du guinéen du congolais ngeen war a nekk fii naan ay waaw Sidi Diop kay day dafay yaa man a teppi sa lëfal nday ak ñi koy wax nee naa la man 3500 euros ah, ma xool ëpp na ko man presque li ma liggéey ci Sidi 3 3 millions war na ko mat barki yàlla parce que man salaamaaleykum maaleykum salaam waxuma la Sidi la ma jox de promoteur bi rek jox na ma 900 euros. sa xam nga ñaata tournée laa dem ngeen naan Sidi du fay du jox ay musicien xaalis yéen a mën a duul man maa ngi nii di noos maa ngi nii di noos tiim sama hôtel laal sama 5 étoiles fu ma neex dem fu ma neex dem am naa xaalis réew naa soo ko noo stress miy toog di duul naan di nangam ci barki Serigne Babacar si boo ko fa génne ko 500 euros du ko génnee yàgg naa koo wax. soo ko génneel ma 500 euros soo ko ma 200 du ma wax ci moom xam nga lu tax chaque jour mu def vidéo di wax ci man duma ko faale parce que bokkuñu level kuy liggéey ak kuy nelaw bokkul man ñëwuma Europe di compter man fii laa màgg ci réew mi su ma demee man di ubbi ay mbalit di war di compter ay pote lampe di di di ubbi ay mbalitu tubaab naan lii mooy mbalitu Europe mbalitu Europe nii lay mel bu si ngi nii mais loolu war ngeen a xam ne aadama bi dof na kii verre dof la kii naa takk ay bagages am ñibbi Sénégal aw ma temps moo tax du ko tontu. chaque jour day def vidéo di wax ci man mas ngeen a dégg man ma taf foto naan damay taf sok sokono srd yàlla yàlla bu mu am ci àdduna bi loolu ay temps yàgg na dépassé naa level yooyu sawaay man damay liggéey man maa ngi Europe awma temps bu may tafee naan di ko kuy kuy taxaw di taxawàllu ci ay mbedd di compter ay potok ay ay ay ay ay poubelle day naan balitu Europe a ngi nii rek mbalitu Ziguinchor aw ma jot bi booy man sa travail man intellectuel la saa yi ba ma nekkee booy ba maa ngi ci réew mi barki Serigne Babacar si man dama am jot boobu ñooñu bu ma leen di tontu da ngay dof moom rek soo ko rek ngay gis muy taf man sama photo di wax ci man mais man du ko def parce que aw ma jot bi su ngeen ko laajee loolu xanaa yi loolu war leen a jaaxal sax bu ngeen ko commentaire aadama moom chaque jour nga wax ci moom du la tontu xam lan ngeen ko war a wax parce que aadama amul sa jot sa man dama am xaalis man foo ma bëggee damay génne ay ore yu bëri wan la ay ore yu bëri dama koy teg ci taabal ji di la ko wan nii. xaalis bu bari laay compter di la ko wan sama weef bii li ci nekk ëpp na un million barki Serigne Babacar si te saa yu ma ko santiré may leen xaalis yéen wéef bi li ci nekk ëpp na un million di dem billaay wallaay wa taalaay te xaalis boobu yëpp senegal lay jóge ñu ma koy dugalal ci wéef bi xam nga ne kooku amul jotu ne fii di tontu kuy kuy wëññi ay poto lamp